ñu def fi projet lampadaire sans lampadaire ñu posé que bir Pire tey nekkoon réception bi moom muy ñëw di assister réception bi ñu gunge ko ànd ak moom ci réception bi généralement bu ñuy def réception réception technique technicien yi ñoo koy def technicien wu ANER technicien wu entreprise du Fond Roche ak euh, représentant maire ñoom ñooy def le tour de la ville compter les lampadaires les lampadaires xool ba xam ni ngi takku la takkuñ waaye c'est la première fois man en personne ma déplacé wu dama déplacé wu ngir la DG Sëñ Mboup pour gunge ko tay pour effectivement euh, xamal ko également comme la wax sank amna na fi amone mais euh, lampadaires yi buñ koy joxe ci dëkk maire bi lañ koy jox maire moy xol fan la def lampadaires yi tey bu ko neexoon mu jël lepp def ko ci ben axe ñun suñu yoon nekku ci danaa ko rek def na li ki lampadaire mom mo koy tànn maire yi comme amuñ jot dañ wax maire bu nekk mu jël ki wolu wóolu boole kook ñun kooku woon ni fan la def lampadaires yi moom tamit dañ ko mu désigné point focal équipe technique bi and ak point focal bi liggéey. ba fu ñëwee effectivement euh, sëriñ buub motax ma ñu fi ndax bëri na réception yi def ci Sénégal déw fa 80 ma ngi door dem d'ailleurs ci réception. Hmm. biñ commencé ba léegi te réception nañ plus de plus de dix lampadaires. xam nga bëgg sax tudd ay tur. waaw effectivement que que Ndoye Bane comme tudd ngeen ko paré aussi suñ ko lëralee quoi qu'on dise. Hmm. suñ ko lëralee xëy na am na yéene pire. waaye lii li ma wax rek li sànq lii projet état la projet président Macky Sall la projet ministère de l'énergie la projet ANER la ñu jël ko jox ko maire yi jël ko jox ko maire yi loolu waaw loolu moom ah, noonu la noonu la tëddee yëpp ci Sénégal yëpp tànn ay ville ne kat projet bi ñii lañ koy jébbal ñooñu tànn nag yàlla def pire bokk ci bu ci pire bokk également suñ bunt ñun ci maire yëpp ci dëkk yëpp mooy maire bi ñu jox ko jox ko mair maire tànn ay aksam tànn ñi and ak ñu liggéey donc non le non le projet bi demee. di sante yalla di gëreum population Pire yépp et ci sen tour may gëreum ton excellence le président Macky Sall euh, pour ambition bi mu am ci Sénégal ci walu électricité ak walu courant su ngeen xolé euh amna juróomi téeméer ak juróom fuk ak juróom-ñaar ay mairie yu nekk Sénégal état moy fay lampi amna dëkk yu am touti comme mën fay amna dëkk yu amul waaye état moko gaddu loolu ci gàddu lamp école yëpp lamp hôpitaux yi gàddu lamp gendarmerie yi gàddu lamp jàkka yi gàddu lamp cimetière yi gàddu lamp fépp foo xam ne espace public la boole kook am programme bu mag boo xam ne daf ni mu bëgg deux mille vingt cinq fu Sénégal nekk ma jox ko courant parce que tey jii bu dee dëkk yi daanaka dëkk yëpp xaw nañu daj dëkk yu mag yi ñu fa dëkk xaw nañu am boo duggee ci dëkk yi gox goxaan yi Euh, daanaka euh, genn wàll gi amaguñu courant te nag euh, jaaduwul ci jamono bi ñu toll nit am courant nga dend dëkk boo xam ne amuloo ko ambition ak yéene président mooy dëkk bu ne mu yóbbul la courant loolu nag mu ni deux mille vingt cinq accès universel loolu boo ko boolee ak di defar courant comme ni ko Senelec di defee li ci ëpp jóge ci pétrole. pétrole ngeen xamni dafa cher maîtriser wuñu marché bi pétrole bobu ñukoy jënd ci dollar dollar bi cher tey daanaka dollar téeméer ak ñaar fukk la maîtriser wuñ ko loolu dafay diis ci état te président buggul won nit ñi comme litre essence yi ni ñu koy jënd du njëg gu mat gi njëg deug deug litre super waron na ëpp lool bo jëlé essence kii bi aussi gasoil bi non la bo jëlé gaz bi suñu jigéen ñi di toggé parce que bëggu ñu continuer di dagg mat non la manam gouvernement bi di jël xaalis bu bari di fayal nit ñi li nga xam ne loolu lañ waroon fay pour mu gën a oyof ci ñoom ñu jël accès ci ci ci ci yooyu yëpp donc loolu moo tax euh, bi nga xamee ni am na ambition yóbbu courant fépp te xam ni dina métti ñu continuer di fay courant yi ci dëkk yi di fay factures yi mu jël décision ni naa jël beneen initiative euh, jant bari na ci réew mi bi ngeen naaj fune ne war nañu mën a wuti courant bo xamni suñu dëkk yi dina leer dina indi sécurité euh, lu ñi nga xamni ni samba boy yi di jël alalu jambru duñ ko mëna def ñi toj boutique yi dina gëna jafé ci ñom parce que lampe yi xam ngeen du lampe yo xam bo jëlé xër sanni rek mu toj donc lolu motax euh, ñu ñu ñu indi projet bobu euh, li nga xamni mo doon comme bu doon duggal ci fayal dëkk yi lampe sen facture lolu bu ko dajé ak yeneen effort yu muy def dana mëna agalé projet bi nga xamni kër gu Sénégal en 2025 bëgg courant Actif.